démb doonu nga def macha allah macha allah yal na sax. bi ñu demee ci éducation paquet ba tas nga ko. ñu jóge ci loolu dem ci li nga xamante ne ne que moo di. Euh, yar yar waaw moo éducation. nga tas paquet. ñu jóge ci loolu dem ci li nga xamante ne alaaji moo di euh, faay faay. faay ba ma la waxoon ci wàllu faayub dépense. ak faayub nangam dem tamit ci wàllu fiiraange donte fiiraange gi sax des na ndax fiiraange lu ci ëpp. wax mooy indi wax ju ñaaw mooy indi xeex mooy indi xuloo mooy indi kurpañ alaaji fiiraange mooy indi loo fi gis yëpp lu ci ëpp alaaji bëppul rek bëppul waaw bu ëpp <coughs> ah, non non man xam nga su may wax waxuma bu normal bi ah, yow dangay ngay di wax ne ne suñu fi toogee euh, ka ka ki nekk ci ci waree fam taxuñu wax kon suñu waxee fiiraange bi di wax violence conjugale yëkkati baatu fiiraange rek waxuñu ba ba nga xamante ne alaaji normal na normal na non non non loolu loolu euh, euh, kenn waxaale wu ko waaye ba ca ëpp ba di jur lunjutu ba ca ëpp ba di jur manque de respect ba ca ëpp ba di jur ay dóor ki saaga alaaji boobu la ñuy wax ndax loolu moo waral thème bi mais sànq xale bu jigéen bi wax na wax boo xamante ne dañ ciy taxaw tuuti balaa muy xuus ci ñeenteel paquet bi mm-hmm. violence bi ma la wax euh, bërki démb nee naa la dafa am violence psychologique am violence économique am violence verbale yaa ngi dégg baax li ma la wax ñetti façon violence yooyu allaaj foog ñu taxaw ci bi ma la njëkk wax nag dama la wax démb lenn loo xam ne baat bi ma wax sax baatu dof sax maa ngi ciy jéggalu ndax du sama cër. wéradi wéradi feebaru xel. <laughs> waaye gis kenn koo xamante ne sëy na ba wéradi ndax laaj su fekkente ne ñu ngi lay jox jigéen kiroog ba nga xamante ne yaa ngi koy labat si ñu la koy jox mu wér péng xel mi ne fi taar bi ne fi lépp ne fi ñu xëy suba jox la jigéen nga xëy au bout de sa années ndaw si feebar. feebar yoo xamante ne nekk cardiaque moo ci gën a néew feebar yoo xamante ne goitre bi nga xam ne mooy indi angoisse gis nga feebaru bollox bii ñuy wax ah, médecin yi koo ci toggal ñu ne xalaat bu ëpp stress hmm. jigéen yi sëy dañu stressé te stress yooyu lu ci ëpp ah naa bàyyi ma ñëw ci feebar yi ma la bëgg a jox jël ci ligne bi yow allo allo allo oui waaw salaamaaleykum maaleykum salaam Euh, tata tata Déguène ça va. ça va alhamdulilah. <laughs> man dama la bëgg sama xol tata Déguène. aywaay je t'admire en tant que femme. ah merci merci énormément vous nous appelez d'où. je vous appelle de Toulouse je suis une jeune étudiante. oui. donc damay lépp tur bi parce que voilà je voudrais conserver une certaine anonymat. bien sûr bien sûr waaye maa ngi lay ñaanal études yegg ak jàmm salaam di nu étudiants yëpp rawatina ñi Toulouse. amiin amiin maa ngi nuyu euh, c'est un symbole dans la TFM vu qu'il donne de merveilleux conseils. ma fille bisimilah. donc voilà en fait je vous appelle parce que je voudrais parler de la violence faite aux femmes mais aussi plus particulièrement faite euh, aux jeunes femmes parce que comme vous le savez euh, il y a de très jeunes femmes amenées à se marier assez tôt quand même et euh, elles font en même temps leurs études et je voudrais dire que tamit ñoom pour ñoom tamit c'est une situation difficile parce que j'en fais quelque chose parce que dama koy dund et en fait je voulais dire que c'est une situation d'autant plus difficile que déjà que booy sëy rek amoo liggéey amoo dara dafay doon lu metti mhm. astamanteeg booy sëy nga xamante ne da nga war a yor sa jàng yore kër gi di subir yenn violence psychologique, mhm. psychique, mhm. Mhm. physique, ay insulte ay rabaissement donc voilà en fait son message bi je sais que du changer grand chose je voulais juste dénoncer un fait c'est-à-dire la la violence faite aux jeunes filles mais notamment dénoncer le fait qu'il y a des jeunes filles des jeunes étudiantes que ce soit en Europe aux États-Unis ou même au Sénégal qui subissent ces violences alors que ñoom elles sont à l'université à la fac war a jàng donc je voulais juste appeler les parents à ce que ñu bu ñu xamee que seen doom mi ngi dund yenn situation yi. Mhm. ñu jàppale leen si dans le dans le sens où agir vraiment de telle manière. Mhm. que euh, ku góor ki dina bàyyi yi muy def. Mhm. voilà su ñu mënee intervenir xool na nañu mënee tase sëy bu sax moo gën. parce que yenn yi jaru ko. sëy warul a jaral nga lox sa avenir. wala nga yàq sa bopp. parce que nañ waxante dëgg ñun jigéen ñi suñu bopp rek la lañ am. ñu avenir rek la ñu am suñu jàng rek la ñu am. Mhm. ci la ñuy mën a yore suñu ay parents yore suñu ay bopp. Mhm. suturaal ci suñu bopp. Mhm. donc je j'appelle les parents à se mobiliser vraiment pour seen seen seen jeunes enfants yi. c'est un message très fort très important te bul wax ne du changer dara parce que parents yaa ngi dégg étudiants yaa ngi dégg. te ku ci nekk rek euh, pierre bi nga am da koy indi ci édifice bi kontaan nañu torop torop torop torop torop di leen ñaanal ci études yi merci fois gis nga laaj suñu doom bi li mu wax dafa fekk si rek li ñu doon wax violence bi ma lay wax violence bi nga xam ne day day déstabiliser nit ki nee naa la jigéen dina wér peng nga takk ko àllaaji amul benn maladie mu ñëw dugg ci sëy bi xam nga dafa ay xeetu góor yoo xam ne yi wéruñu waaye ñu ngi sol yére ndax France ngay gis kenn koo xamante ne wala bitim réew dëkk boo gis di nga gis kenn koo xam ne dafa am ay trouble yoo xam ne très dañ koy déceler ci nit ki xam ne nit ki équilibré wul waaye fii de l'instant que yaa ngi xëy di ñëw alaaji rawatina nag soo yoroo as tuut dina jafe ñu gis ne ne que wéruloo <laughs> feebar bi ma lay wax. Ah, waaw jeeg yaa ngi dee de. jël ki ci ligne bi allo. <laughs> salaamaaleykum. waaleykum salaam. Papa maa ngi lay bu baax. en tout cas naa la fay naa la bu baax sama doom. bëgg naa la bëgg naa la lu ko raw. bëgg naa trop sañ naa la ko. <laughs> waaw man nag émission bi kontaan naa trop mais man problème bi jigéen ñi laa koy jox. ndeysaan. parce que man jigéen laa maa ngi soog a dugg ci sëy vingt ans maa ngi soog a am vingt ans mais jigéen ñi dañoo sikk saa jigéen. yaa ngi sëy. maa ngi soog a am vingt ans bi ma duggee sëy matagul deux mois. ma tugul deux mois. mais sëyeeguma sëyeeguma maa ngi suñu kër sama kër yaay. kon yaa nga am ñaar fukki at bi nga sëyee ma tugul ñaari weer waaye lépp da ko teg jigéen ñi. waaw dañu safle ñun xale jigéen yi dañoo safle trop nag dañuy dañoo dangaam trop. ay sant suñu moroom suñu kii ne suñu jëkkër la dañ ko war a respecté mais ñun chaque jour suñu jëkkër buñ nee benn ñu ne fukk tàccu tàccu la fii ne yow mi nga xam ne lii xam nga boo génn bu génnee ñu ne ma ngay dem. foo demoon toxaani nga nangam ma nga ñun jigéen ñun tamit aussi dañoo si mais maa ngi leen di ñaan góor ñi daal ñu yërëm ñu ñun jigéen ñi xam ne tamit jigéen matul comme ni ñu koy waxee tout le temps man nag yow nag saa hmm. da nga am lu nga def ci man lu bëri Papa Ndiaye loolu mi ngi koy wax semaine bi naan di am na ku doon nar a def lu bon sax su la seetaanee dina changé. dëgg la ndeysaan. mais man sa laa soxla pour. léegi léegi bul kite lancé na jox la ko dégg nga. waaw d'accord bul kite bul kite ndeysaan allah dañ koy ñaanal rek. Mm-hmm. yàlla def ko ndam sopp tombaloo ko aussi ci gar mi. Mm-hmm. parce que nii muy wax te xale la. xamagul sëy nañ ñaan yàlla mu tombé ci gar mi parce que bëri na jigéen joo xam ne ba ngay dugg ci sëy conviction nga ci duggee waaye dañu dem ba dof loolu alaaji baat xolo baat bi feebaru xel loo ma wax léegi wéradi wéradi <laughs> alaaji wéradi boobu da ngay gis ay jigéen yoo xamante ne dugg na ci sëy déjà suñu société euh, dafa mel ni tas humiliation la nit ñi am nañu kersawu dugg ci sëy rek tas sa yaay moo lay naan eh bu ma may riir yaa ngi dégg baaxal ma mm. ngay xool nawle xool lu bëri xool lu bari ba nga xam ne yow dangay ngay teel a xam ne ni que kii mu ngi lay bundu xataal ngi lay violenté mi ngi lay faagaagal waaye yaa ngi wanaasu nit nag nit nit rek la mën a doon mm-hmm. la ngay wanaasu su ëppee il faut mu génn ci yow na muy génnee ci yow mën na génn ci bollox mën na génnee ci xol mën na génnee ci tension mën na génne ci cancer ji mën na génnee tamit ci feebaru xel moo tax ma ne la bëri na fi jigéen yoo xamante ne ñu ngi ci néegu sëy gis nga seen saak yi wala seen tiroiru nekk soo ko tijjee garab rek la am na fi bëri na fi man gis naa àllaaji jigéen yoo bëri yoo xam ne man maa leen génnee ci naan garab pour nelaw ku wax ma ne la déet jëndal jëla xobu karasol bàyyi garab yi ngay naan ndax mujj gi dina indi sekal ndax da ngay waxtaan ak man xamal ma ni yow balaa ngay nelaw da ngay jël somnifère ma ne la bàyyi somnifère bi gis nga karasol bi mën naa mën a jëla xob bi nga baxal ko nga naan ko dafa mel ni somnifère te naturel la xam nga loolu lépp parce que dañu ñëw toog di ñu wax ak ñun alaaji kon xeetu jigéen yooyu nga xamante ne ne sonal nañ leen lu ci ëpp nag du ci coup du coup coup booy gis nii waaye dafa am ay xeetu coup yoo xam ne alaaji day dal xam nga lan wax ju ñaaw <laughs> bankal tey nga waaru de <laughs> jël ki ci ligne bi allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam waa Pam Ndiallo Mbacke Balla jaay jaata nga def ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. man dama bëggoon participer nag ci émission bi. ñëwal. waa léegi man dama xool xam ni kii bi yëpp ci jigéen ñi la parce que li olof naan li nuyoo woon ci ci ngoro wala ci début sëy lu lu lu am ci sëy nuyoo woon na ci début bi kenn da koo fayu mhm. man loolu laa gëm. ndax man damaa dama dund lu mel noonu ndax man damaa ñëw fii Europe teg ci sama njëkkër mu indi ma fi ndax dañoo def ay ay quelques mois ñu jotee jote bu ndaw bi jotee jote boobu mu saaga na ma ci saaga ma na ma ndey xas na ma ci nee na ma cagal nga ba moom moo indi la fii da nga doon tegatu Sénégal lu nga indi la fii waaye bi wax boobu amee histoire boobu amee damaa xaar ba fekk ci rakkam góor mi ngi fii Europe man tamit sama mag di góor a def di ñu wàccee ñoom ma woo leen laaj sama jëkkër tontuwuma ko nag bi ma bi ma waxee bi ma saagaa nee naa ko dangaa respecté wu sa yaay moo tax nga saaga yaay jàppul waaye ku respecté sa yaay rek di saaga yaay jàpp léegi bu ngoon jotee ñoom ñu wàcc ma daal leen taaj ne leen nag te eh, sama jëkkër wax na ma lii wax na ma laa léegi nag damaa bëgg nag man lii du ma ko sëyaal damaa bëgg mu may ma sama baat te delloo ma fa ma fa ma jëlee woon muy Sénégal léegi ñuy wax wax mujj gi xam nga foofu mu jëg man baalu ma àq. ne man lii dootul amati baalu ma àq moo tax ma xam ni rek am na loo xam ne bu amee sëy rek commence ci commencement bi la boo ko lijjantee ci commence am na jigéen ñoo xam ne nag ñoom yooyu la ñu bëgg. ñu bëgg ay ñuy dóor ñu leen di dóor rek di leen di xam nga mais nag loolu li jënt ci commencement bi rek keroog la ma sama jëkkër mujjee xas ci lu ma mujjee wax lu ma na mhm, mhm. fa la jeexee mhm. moo tax nag moo ma ni lépp ci jigéen ñi la waaw ci jigéen ñi la wax nga lu am solo waaw boo ko jëntee ca commencement ba rek dëgg la du dem loolu mooy na dakk waaw na dakk na dakk waaw day waaw jëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna si li mu wax am na solo alaaji waaw bu tontu woon nag waaw bu tontu woon hmm. jëkkër ji ñëg te duutu arrière hmm. sëy ba mën na faa yam doo am dégg ngeen hmm. coow lu jib rek ñaara ko séq benn lam du yëngatu déedéet na mu ne tekk te waxu ko ba kilifa am dikk mu digg yéen fa la tontu neexe def na yëfu mag def na yëfi mag dëgg la waaye damay wax toujours ni la. li ëpp tu solo te gàcce góor. ak i góoram. layoog sa jabar kilifa yi toog mu yey la. <laughs> baatu mata daw la. <laughs> layoog sa jabar kilifa yi toog mu yey la. baatu mata daw la. alaaji. Mhm. soxna si ñu ngi koy remercier bu baax a baax ndax li mu wax yéen a jigéen yu bëri. dama la bëgg wax ku yi nga xam ne du feeñ. Mhm. te mooy rey mooy lo mooy doppooral loo jigéen xam nga baatu dof bi sax damaa ngi ciy jéggalu. Mhm. waaye doppooral lay def jigéen. alaaji jigéen yooyu nga xamante ne ne balaa ñuy nelaw jëli doom cardiaque nañu dof nañu gis nga fu mu nekk nii macha allah macha allah euh, lu ci ëpp soo demee ci hôpitaux yi ci yenn services yi jigéen ñi rek ngay gis parce que bañ nañu ku leen ree seen sëy ba naqar rek lañ fa toogee seen doom yi ci naqar liñ leen jógee gis nga àllaaji bul juum lu tax doom yu bëri fii fu mu nekk nii di def na naka sodul noonu parce que sequñu ak seen borom kër ci ni ko diine bëggee. ndax jigéen da koy nax wax ko wax ju neex ba jot ci moom ni ko alayhi salaatu wasalaam digle waaye ci xol bu tàng jigéen dina dem ba nga xam ne nekk ci biir néegu say jëkkër ji lim lay def mel ni viol parce que na mu lay na mu lay amee du ci kersa na mu lay amee du ci teggi na mu lay amee du ci sutura boole ci wax ju ñaaw boole ci saaga boole ci allaaji ay xeetu xol yu metti yoo xamante ni jigéen ñi moom la ñuy sëy gis nga soo jëlee téeméeri jigéen tey wax la loo xam ne góor ñi dañ def attention ndax di yor sa cartable di dugg ci kër ak di génn gis sa jigéen ndeysaan su xawee tuuti puudaru toog noonu bañ ko ko xamal dara soo jëlee téeméeri jigéen juróom-ñetti fukk ya laa la wax lii la ñuy dund <laughs> jëla ki ci ligne allo asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw maa fii chéri ziyaar nañu leen yàlla yàlla nangu ziyaar ndeysaan daana sama sama mbokku étudiante bi doon wax sànq moom laay waxal waa sa étudiante bi waa kay parce que dafa ne parents yi dañ si war. ndeysaan dina dellu si dégg nga laaj. violence boobu. nga xamante ne ni nit dina dem ba déséquilibré nit dina dem ba nga xamante ne ne que hôpital gis nga benn bés àllaa ji dama mës a dem euh, kii hôpital ba ba nekk fale ca hôpital Fann clinique psychiatrique ba ndax dafa benn malaat boo xamante ne nekk dama ko fa yóbbu woon ci cadre confidence bi ma toogee yóbbu malaat bi parce que à l'époque drogué la woon benn jigéen ma toog di waxtaan ak docteur bi mais gis nga genre cabine yooyu nga xam ne ñu ngi hospitalisé allah ji jigéen ba ma gis mu génn fa daanaka uru euh, daanaka mosumaa gis taar bu mel noonu ci jigéen mu muuru dem dugg ci bureau docteur bi toog a toog toog toog ba si yàgg àndaat ak tante ji dugg donc man li may ñëw di liggéey si ci cadre confidence dama tiit ndax jigéen bi lan la war a mën a def may waxtaan ak docteur bi ma jékki-jékki mën na ko mën ne man maa ngi fi indi kii ci cadre confidence sama drogué bi waaye kii ma gis nii jaaxal na ma loo fi ut mu ne ma ñii duñ fi jeex mu ne ma kii sax ay mbokkam ñoo nangu ñu hospitalisé ko waaye lépp sëy bu bon moo leen di fi indi sëy bu bon mu ne sëy bu bon nekk ay violence psychologique violence ay crime sax psychologique yu ñu leen di teg ba nga xamante ne su fekkente ne ne que bañ na société bi ree ko rek day flanché alaaji lii paquet bu rëy la paquet bu doy waar paquet bu metti boo xam ne jigéen ñaa koy dund góor ni di jaaga jaagari koo ci gis gaare 4-4 gaare nangam di dem ak di dikk fekk ne sa jabar lan ko def moo tax gis nga gis nga moo tax ah nañ dem seetaan gramme ES allah <laughs> ji dellu si ndax jigéen ñi léegi ku ciy ñëw di waxateeg man sax dama koy naan mm, dama ci allah ji fii da ngaa nekk ci lambi lambi baadoo la ah mm, waaye cadre moom nekkatoo ci ah? faris mm. euh, gërmi ak lingéer ñaari yëpp daa toxu fi ñu toll. waaw yaa ngi ci cadre boo xam ne bii am na góor ñoo xam lu ñu lekk lew na loolu xëy bi ñu balaak moom. laaj jigéen boo xam ne balaa ngay nelaw jëli doom ndax misère. waaw misère misère dama ne dégg dama ne am na jigéen ñu du ñu misère am na góor ñoo xam ne du ñu misère. nañ dem ba jël si ma tojal la nag. ah tojal nañ dem def pause allah ji dellu si. parce que gis nga violence bi dinañ ci taxaw ñaari fan parce que jigéen ñi allah ji àq bëri na gis nga sëy yi àqu neen la nañ dem léegi dellu si ci kàttanu yàlla ba tey ci violence conjugale